yee asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen màggal la leen leen tiitaroo comme ni ñu koy defee saa yu dara amee rek ñu daw ñëw wax leen après jàll ci leneen yaakaar naa ni euh, <clears throat> mission la xeex la metti na trop nag ñun lu ñuy def dafa métti trop mais euh, parce que gañewuñ ci dara am amuñu ci dara dañ ci dégg lu ne mais alhamdulilah yàlla ba léegi fenloowuñu parce que lu ñuy wax boobu ba léegi doomu aadama munu ko dinti ci lépp lu ñuy informé. gaaw ñu informer nak mais duñu informer luy dañ lu wax rek jusqu'à l'extinction du soleil dom adam du ko dindi pib mo la di wax ba léegi amugul luma ma wax mu dañ amugul luma wax mu dañ duma yalla duma ya amugul lu wax mu dañ buma ma dara rek lool la mais ben instant ñaar dama leen koy wax Macky Sall lu mu wax def ko la morgue lu mu wax nga gis ko Ousmane Sonko lu mu wax def ko ñetti ñi moom xam na mun naa leen waatal ci alxuraan ne lu ñu wax am dañ ko def Macky Sall lu mu wax def ko laa lu mu la wax nga gis ko sunk lu mu wax def ko peuple bi moo ma jaaxal est-ce que ñoom lu ñu wax def ko loolu rek man <laughs> foofu moom challenge bi peuple bi la peuple bi rek moo ma yéem man ñoom laa gis ñooy wax luñ dul def ñooy yuuxu ñooy menacé gat sa gat sa lii la lii la bu loolu jotee bi mu génn peuple bi kese laa gis ni ñoom du ñu wax lu def du wax lu def à temps réel manam tambour battant di xeex comme nit yi mais man Macky Sall nu war ko def ko man mun naa ko mun na ko waatal ci kamil man lu ma la wax da koy gis par la force day yàgg rek mais da koy gis Macky Ousmane Sonko lu mu la wax da koy def mais man peuple bee ma yem ñoom ñoom la jaar seen kaw di leen toroxal ñoo lay wax dara te doo ko gis ñoo lay gëmloo ni bu la laalee dinañu dina dinañu tooñ bu la laalee dinañ ko dóor bu la laalee dinañ ko génne palais bu la laalee loolu lépp ba nga am confiance ci seeni wax mais bu bu la laalee ñu toog di admirer walla ñu toog naan di di werante di werante man bu ma leen waxee dara daw leen gaaw jóg leen bu leen toog di xaar kenn bu ma leen waxee dara bu leen xaar

danañ dem ba nga xam ni kenn du amati confiance ci yéen ne koo leen gëm loolu ku leen laal ñu rey ko wala ku leen laal kenn du leen gëmati parce que dañ naan ñii mooy tulli seen wax ne seen wax julliwul buñ la gëm gëmlooyu dara ba nga dugg ci buy metti duñ doo leen gis buy metti doo gis il faut ngeen taxaw quand loolu moom mooy njëriñu xeex bi xool leen ni ñuy def sonko loolu pour yéen am ngeen ci ndam yéen a wax gàtt sa gàtt sa yéen a koy wax ah yéen a ko taxaw di wax ah kenn sexu ni leen lem yéen a taxaw di menacer di wane ni ku laal ngeen taal ku laal ngeen toj ku laal ngeen boyal ku laal ba ñëpp foog ni ku laal dañuy Sonko rek gars yi dañ koy laalee nu mu leen neexee et ils sont très stratégiques ba mu waxee dara pour ngeen wuti plan la nee naa leen xeex bi xeexu stratégie la xeexu stratège la ku amul bopp génnal ci xeex bi wëril xeer

bu ma leen gars yi mooy ponkal yi nekk ci kaw ci décision yi man ma ci foruma ci kenn ci weewu bëy ma ci du ma seetaan live du ma déglu liveur xaw ma liveur yi lu ñu wax mun nañ ma jóoba suba du ma ko xam parce que du leen xool kon bu ma leen ne dara rek jàpp leen ni ponkal laa leen di wax chaque jour bu ma ñëwee loolu laa leen di wax dama naan leen ponkali yi nee nañ ma vendredi euh, Ousmane Sonko ñi ko bëgg a jàppee ca Tamba nee nañ ma foo leen ko déggee moom mooy ponkal nee ñi ngi préparer pour japp Ousmane Sonko Tamba légui dafa am lu anticiper japp Ousmane Sonko bi lu ko anticiper lan la Ousmane Sonko nak japp ñuko ko pour yóbbu ko kasso de dañ ko yóbbu kërëm bàyyi ko fa lu tay lañ ko waron jëli Tamba mais lan moko anticiper demb acte bu mu def demb mo anticiper parce que acte bu mu def demb woo leen est génne ouest affaire bobu dañu gendarmerie nationale dafa yëngu Macky Sall daf cee mer parce que dañu gis ni Sonko manam da len di défier force de défense et de sécurité le Sonko di défier luñu jang formation bi le Sonko di défier luñu ñu mën Sonko di défier ñu né nak xaaral légui pourquoi ils sont super intelligents moy Sonko dafa woote est génne ouest légui tay rek lañ ko mënon dem jëli lu buñ ko jëlé bala sénégalais yi di gëm mu def lu sonu sonu lool parce que fu ne ni sank def na ñaata live la def pour wax leen ni Sonko japp nañ ko ñaata commentaire fa nek yo xamni né no noo jàpp ñu ko kenn laalu ko no système la no nangam parce que Sonko moment bu mu waxee bu mu génnee ba ñëpp né li stratégie la ci lañ profiter dem jëli ji ko booy la gendarmerie nationale aussi foofu ñu hein ah. c'est des années hein ils ont fait des formations hein ne pensez pas gis nga affaire da ngay xam sa bopp tamit quoi mbedd mi amul ku leen mun a téye mais naan ay quatre cinq cinq ay sénégalais wala trente sénégalais yoo ay Ziguinchor mun nañ xaj ñu jël fa Ousmane Sonko loolu ku la ko wax day kàcc te waxoon naa leen ko démb ak bërki démb Ousmane Sonko génn def live comme yéen moom rek moo leen mën a wax dëgg mu wax leen dëgg bu leen mu dëggal sama dëgg ne leen moo laa móor gën wax na dëgg yéen ay kàcc bu ma gendarmerie soxla woon fii daf may jël si kenn mënu ko loolu la Ousmane Sonko wax donc man la may dëgg te bama kay wax am nañu dof dof la nan ay non gendarmerie mënul lolu vous êtes malade yo gendarmerie dañ ay formation de guerre ay police de formation de guerre xam bombe xam lacrimo xam lepp def ay formation di yek ci ay mur di genn ay lene nga taxaw na nga ne ñooñu buñ bëggoon ñew jël Ousmane Sonko mënuñu ko jël mais vous êtes malade la kan mo mëna taxaw di wax lolu wax dof yoyu non mënuñu ko non ñi ñoon nag da ngay vous êtes malade ni sa arme lañ yor ñi ay arme lañ yor ñi ay arme lañ yor dañoo def formation bi jàng ko ba ne ar mun ko xam nañuy def nga ne ñoo ñoom munuñu loolu da ngay indi fenn ku wax loolu da ngay fenn loolu moo tax Ousmane Sonko ñëw ne la hey moo laa moo leen wax dëgg buñ ma soxla woon tey kenn mënu leen téye l'armée la gendarmerie la police buñ ma soxla woon kenn mënu leen téye ñi arme li ñi ay arme lañ yor ay arme lañ yor lenn kese lañ mënul mooy la foule elle est folle la foule est folle mbedd mi bu génnee sénégalais buñ génnee kenn du leen mën sénégalais yi wax waxuma so waxuma Kolda information da nga comprendre dama ne so kese mënuñu xañ gars yi jóg ne dañuy jëli Sonko mënuñu ko xagn il faut que Sénégal yépp génn Sénégal yépp ñoy génn affaire bi kenn du ko mën parce que la foule est folle donc on réclame aux Sénégalais de sortir les Sénégalais lañu wax on parle pas de gox tout le Sénégal dans son ensemble guen def lu ñaan révolution pour farata la lool lañ wax du ay mbirum gox légui nak Ousmane Sonko lan lañ jouer ci mom Ousmane Sonko dafa woté l'est guené l'ouest mais c'est normal motax ñu jëli ko buñ ko jëlé semer le doute yoni sen ci internet non ko mi ngi ci mi ngi ci nangam ak nangam mi ngi parce que mi ngi mel ni ma nekk di sangu rek toog mu yàgg ma yuuxu ay eh, lab naa dama lab dama lab gars yi daw génn ma man dama leen di dama leen di nax stratégie la woon ci la lendemain rek lañ ñëw jël ko léegi nag boobu gars yi di yuuxu naan ay eh, jël nañ ko jël nañ ko gaa naan non stratégie la non xaar leen suba bu guddi gars yi stratégie la xaar leen non euh, ba ñu wër Ousmane Sonko sax xamuñu ba xam jël nañ ko très tardivement lañ lañ doog a jóg ñoom tamit même ñoom la gendarmerie

lolu len kese moko muna a ñu amul solution dé solution moy Sénégal yépp génn Sénégal yépp génn Sénégal yépp bolo, génn solution. ngir yalla une solution. mo jot génn solution. Sénégal yépp la wax génn xeex une Gossas sor dafa mais yeneen région yi li ñuy xaar yeneen région yi dañu war a génne ñoom tamit joxe seen bakkan mais xoolal lu ñuy def Sonko dugg ci oto bi gars yi photo ko jël ko di ko jox ay Anita jóob Anita Diop nga xam ne ñëpp xam nañ ennemi la Anita Diop mooy nekk ba France Paris la nekk di commander ay nit ñuy jàpp ay patriotes réew mi ne salaw Anita Diop ab caga bu nekk ba Paris toog fu mu toog di jàppalu mais xanaa Anita Diop bu mënee jàppalu ay nit xanaa Mollah Morgun war naa mën a génne ay nit Anita Diop mooy nekk ba Paris di commander ay nit di jël ay numéro nit ay photo nit di leen dugal ci internet bi dig di leen jëli kon Anita Diop mooy tëjlu ku ko neex Paris la nekk di tëjlu commander commandam di tëjlu ku ko neex senegal Anita Diop la ñuy yónnee ay photo mu bind ci ay Anita TV wan leen ni seen leader xool leen ni ñu ko toroxalee ñu ko tànc chandis ko

ñu waxati Anita Diop dem ñu jël ñoom ñu photo xoolal lool gendarmerie nationale ba fu ay règle strict yu Sonko ba fu ay droit am di photo comme prisonnier jàpp Ousmane Sonko ci biir euh, euh, oto oto blindé bi di ko photo di ko jox ay Anita Diop kon yéen Sénégal kon dëkk bi instant yi tàkkul nii kon réellement dëkk Sénégal jamono ji kon tàkkul kon fu ne ni fàttu leen autorité yi daana tàkkul loolu loolu def leen dara quoi force de défense et de sécurité di jàpp ab di ko infiltrer di ko exfiltrer di ko jël di ko yóbbu di ko toroxal foto ko jël ko jox ko Anita Diop mu def ci markam di di di leen di jéem a humilier kon dëkk bi kon Sénégal génnu leen nii mun ngeen wàcc ci darajay Seydina Mohamed yéen génnu leen kon génnu leen c'est incroyable la ilaha illallah ay way senegal liko dal metti na de non de Dieu dal senegal metti na Anita job dum pap malik Ndour Anita job ab cagala bu nek Paris mi ngi Paris mi ngi Paris tok Anita job jigen la du pap malik Ndour jigen la mi ngi Paris tok caga bu mag la ma nga Paris tok kay ñi ngi nan sax mi ngi euh, ki lay liggey lu tuduti consulat bu bu bu bu Sénégal à Paris Paris la nekk di liggéey di leen liggéeyal foofu la toog di tëjlu ay sénégalais vous pensez que loolu loolu dëkk bu gore dinañ ko def vous pensez que loolu dëkk bu gore dinañ ko def nekk ba fële Paris di tëjlu ay Sénégal ñaata sénégalais la la daa tëjlu ci juste seen numéro téléphone bu muy génne ak seen photo ne kii moo def dans gendarmerie dem jëli ko wala wala DIC dem jëli ko wala police nationale dem jëli ko. ñu jël ñom ñi ñu nekk ci biir blindé bi enregistrer Ousmane Sonko di enregistrer Ousmane Sonko c'est humiliant ils n'ont pas droit de photographier Ousmane Sonko amuñu droit bi waru fa génn fi la lii bu doon Europe wala Amérique nga porte plainte personne n'a droit de photo Ousmane Sonko ci biir gendarmerie bu nga interpellé nit di ko photo ci biir du criminel nga koy photo ba ba muy mujj ci réseaux sociaux yi loolu sincèrement <laughs> xanaa mu nekk dëkku doomi xaramata njaay ndax Sénégal loolu la sant dëkku Sénégal njaay lañu dëkku doomi xaraamata njaay rek la mun a doon nit ñu jàpp la nga nekk ci biir oto ñu lay photo di ko yóbbu ci réseaux sociaux yi ba di ko jox loolu c'est très humiliant loolu dëkk bu dul dëkk doomi xaram ñi ma ñi ma ko def nit boo ko defee citoyen kala na xam moo ubbi di nga ko justice ngeen jëm fii bu ñuy jàppaate sax dañ lay muur dañ lay muur dañ lay muur lu mu tudd d'image fii même bu lay jàppalal amuñu droit police du la photographier du la vidéo da dugalal kagul loolu boo ko defee fii barki alxuraan ñi nekk ci oto bi yëpp yëpp dinañ dem justice ak yow mais Sénégal xam ko bordel la buñ gisee yenn affaire ñom pour ñoom xamuñu droit sax xamuñu droit xamuñu devoir xamuñu ñom ñom pour pour ñom ça pas amna na sax dof bu taay ne non c'est pas humiliant dof ndayam voyagé wul bàyyam voyagé wul jur leen fofu ñu nek ci cochonnerie mag xamuñu éveil xamuñu droit xamuñu wax ay dof y en a beaucoup au Sénégal on parle plus de ça loolu lépp jóg jóg wuñ ci lu dul torox jéem a toroxal di essayer di toroxal Ousmane Sonko loolu manque de professionnalisme la loolu bafoué des droits humains la ñu jël Ousmane Sonko yanu ko yóbbu këram teg fuñ ko teg fan lañ ko teg ne Ousmane Sonko du du tëbal ko ay ay yoon tëbal ko ay yoon indi ko dugal ko këram teg ko bu ma doon Ousmane Sonko damay suba damay jalaat jëlaat oto mais instant yi barricade nañ këram xa fi mu ne nii tëj tëjati nañ Ousmane Sonko tëjati nañ ko de jël nañ ko récupérer dugal këram barricade du génnati tëbal ko yoon bu mu waroon jaar yëpp Kaolack euh, lu mu lu mu tuddati euh, Gosaas dëkk yu mu waroon jaar yëpp ñu tëbal ko naawal ko. dugal ko ci oto ñoom yóbbu ko déposé barricade këram doo fi génnaat ay waaye ndaw ngeen foog ne loolu dëkk la jóg leen gaay gaay jóg leen jóg leen violation de la vie privée violation des droits humains loolu moo am Sénégal jóg leen lii am nii dafa ñaaw du dëgg du yoon Kaolack lañ ko jaarale sànq sànq gis ngeen vidéo boobu noonu ay blindé plus de cent ay blindé auto gendarmerie nationale kidnappé woon nañ ko jël nañ ko bu yàgg romb Kaolack wàcce na usman Sonko wàcce nañ ko Kaolack brigade de recherche Ousmane Sonko wàcc na fa gars yi blindé waat yu gis ngeen vidéo bu ma dugal mi ngi noonu mi ngi foofu dem leen xool vidéo boobu ma leen noonu ay blindé ñoo nekk ci kanam gendarmerie lu mat cent oto bi ci kaw ci oto la après il fallait ma toog dem wër ba sonn noppali ko ñu ñu doog maa indil ay preuve na oui voilà nga <laughs> dëgg kay we gars yi mu ko mu jóg kidnappé quoi non Mollah li nga wax dëgg la du dëmm du rab du jinne du malaaka Mollah nit la il faut arrêter Mollah nit kese la coono gu muy def ci xeex bi boo leen ko defee affaire bi réussir li muy rey boppam di leen jox di indi information di leen jox boo leen ko defee noppal ko saa yu waxee da ngeen ko noppalul bu noonu ngeen ko noppal mooy jóg faj mbir yi une bonne pour tout mu jeex moo laa noppalu moo laa lekkatul naanatul xalaatatul nekkul ci dara suba ak ngoon mi ngi ci ay inform mënul nekk sax ay nit fu mu toog mi ngi yor ak ñu allo allo di daw di génn moo maa ngi mel ni kaña ci ville chaque deux secondes sama gars yi woo ma Mollah Mollah léegi ma daw génn munu ma nekk ak kenn munu ma toog parce que bëgguma kenn xam fu information yi jóge no sama sonn te loolu lépp sénégalais mun nañ ko liggéey lijjanti benn yoon mun ngeen ko lijjanti benn yoon wala li ngeen di dund da leen méttiwul li ngeen xanaa méttiwu leen wala man la gën a metti man yéen a dafa nekk ci tàngoor gi ci mettit bi ci xiif bi ci ñàkk liggéey bi mais man dama sonn waay barke alxuraan sonn nu Sonko sonne laa sonne dama waxa waxa wax ba ngeer te kenn teguma ko kenn teguma ko ndax kenn fayuma boo leen jógoon rek mais dans la main ñu lijjanti ko une bonne fois pour tout wax ji jeex kon léegi Sonko jeex na kon doon Sonko lu mu génnee woon yëpp préparation beeg dox bi ne day dem jaar après bu jaaree Kaolack après day jaar Kaffrine après bu jegee jógee jaar Kaolack après Tamba Kaffrine Kaolack après mu jaar euh, euh, Fatick après ko mu jaar Rufisque kon loolu jeex na kon loolu daal Macky Sall en une seconde moom lijjanti na ko quoi jàpp na leader ba encore exfiltré ko infiltre ko filtre ko dugal ko otom yóbbu ko déposé ko këram barricadé ay waay ndaw kon affaire bi jeex na amul xeex amul xeex ah kon ñun li ñu doon xaar yëpp kon projet bi noonu la ko Macky di def daal projet bu ñuy xaar ay at di xeex am plus 27 morts 27 morts di xaar Ousmane Sonko mu ñëw ñu accueillir ko Ndakaar yëpp taxoon moo leen ko wax ne Ndakaaru pareel leen ma sax dafa mel ni lii la waa Ziguinchor gisoon bi Ousmane di dem nee nañ ko bul dem bul dem Ousmane ne damay dem ñu ne ko bul dem Ousmane ne damay dem mun naa leen ñaan ñu bañ ndax Ziguinchor wóoluwul sax jël seeni nit sax di ko jox di ko dénk keneen mais Ousmane ak nu mu leen waxee woon gë gëm leen ma Ziguinchor boo leen ma wóoloo da ngeen boo leen ma yaakaar leen may wóolu aussi wóolu leen ma li ma leen ñaan may leen ma ko dama ne Dakar bàyyi leen ma dem Dakar gars na ko waaw bàyyi leen ma dem Dakar ba ndax négocier dafa négocier sax ak waa Casamance pour Casamance mun ko bàyyi pour mu dem mu wax leen waa Ndakaaru ne leen préparé wu leen maa ngi ñëw gàttanu leen ma fépp fu ma jaar na ma région yi topp nañ dem Macky en deux jours mu je suis je leader ba exfiltré ko yobou ko këram denc ko fa ne ko fi ma le premier ma xol ñew man ak sama juge ni ñi def ak yow mais heure bi la may heure bi la war bi war a mais gars yi dañ koy bañe a je mais loolooy bi jamono ji bu du normalul parce que dara normalu fa jog leen Dakar jóg leen boo leen jógee ñëpp jóg te bu leen fàtte ni Ousmane Sonko balaa moo jógee Ziguinchor dafa négocier ba sonn ak Ziguinchor waay yi pour ñu mun ko bàyyi mu ñëw du leen neex de jël sa doom dénkaane ko ne yaa ngi yónnee kër bàjjanam papaam ak yaayam bañ nga ne leen déedéet bàjjanam am na jom am na fulla bàjjanam du seetaan bàjjan bu yuux xataraayu ne bu ñëwé fi di ngeen xamni ma gëna bëgg seen dom dom ja génn ca yoon ba ñu ne bandi ba ne ko war a daw daw yob bandi ba sacc dom ja xana bu ba bu bu bu bu nak dina xaru de ndax papa ak yaay ja lañ doon ba ñëpp xalé bi mo négocier ak ñom seen dom ja mo négocier ak ñom papa baye mama dem yaay baye mama dem sama bàjjan dafa bëgg sama bàjjan bu ñëwé bu ma fa démé dama topato sama bàjjan bandi ba ñëw kidnappé euh, doom ja yóbbu Dakar wane leen nag seen bopp wane leen seen bopp ngir yàlla région yi jóg lan la ñuy xaar pour pour révolution bi lan la ñuy xaar pour déclencher cette révolution amul leneen lu ñuy xaar fii amul lu ñuy xaar Macky Sall force force reste à la moomul force la force n'est pas Macky Sall la force a existé avant Macky Sall la loi a existé avant Macky Sall chef militaire wala chef gendarme wala chef policier bu fi ñàkk fayda bu Macky Sall def la sa mbaam loolu yow la bi ngay jàng Macky Sall jàngul ba ngay liggéey Macky Sall liggéey ba ngay ba ngay say grade Macky Sall ne doonul dara ba nga nekkee homme de tenue Macky Sall nekkul tous donc boo ñëwee ba Macky Sall di la commandé ka def la yëfu salte loolu yow yaa yow yambar man du ma liggéey liggéey boo xam Macky Sall defuma ko ba pare après ñëw bu maa moom chef gendarmerie wala chef police wala chef police nationale wala chef mais Macky Sall moomu leen dama ne na Macky Sall def lu muy def Sonko def lu muy def mbedd mi def lu ñuy def sa Macky Sall la ngi def lu muy def Sonko mi ngi résister ni muy résister point d'interrogation bi et la rue la et ñett ñoo fi nekk Macky fi nekk moom ak ay forces, am police gendarmerie justice Ousmane Sonko fi ne nee na moom yàlla la yaakaar ak peuple sénégalais bi peuple sénégalais bi moo war a atte kese peu y a que le peuple sénégalais moo war a atte donc toute la nation toute l'Afrique ñi ngi déglu Sénégal kenn desatu fi tout la nation ñëpp a ngi déglu Sénégal barke alxuraan ñëpp a ngi déglu Sénégal ñëpp ñi ngi déglu Sénégal Afrique yëpp a ngi déglu Sénégal Malien yaa ngi déglu Sénégal Burkinabé yaa ngi déglu Sénégal Algérien yaa ngi déglu Sénégal Égyptien yaa ngi déglu Sénégal Tunisien yaa ngi déglu Sénégal ñëpp a ngi déglu Sénégal ñëpp.

Sonko est bien arrivé chez lui. Sonko n'est pas bien arrivé chez lui. Sonko ne voulait pas arriver comme ça chez lui. Donc il n'est pas bien arrivé chez lui. Objectif Sonko du woon décidé tay Sonko n'est pas bien arrivé chez lui Sonko a été kidnappé et amené de force chez lui il faut il faut appeler chat par chat Sonko a été kidnappé par les forces de défense et de sécurité ñoom ñoo ko jël nangu ko dugal ko këram par force ngeen naan ay chez lui Sonko a été bien arrivé chez lui comment bien arrivé Son Sonko moo jël boppam yóbbu ko chez lui Sonko euh, euh, chez lui bien mais comment c'est Madame ma dem sama yoon mais des fois ngay gis affaire yoo xam da nga mais Sénégal lan mooy problème Comment quelqu'un peut dire Sonko est arrivé bien chez lui Sonko est arrivé. Il est arrivé chez lui malgré, lui. Il a été agressé. Il a été kidnappé. Il ko yobuko est bien arrivé chez lui. peace